من الإله بالرسول أدعو ما ثم الأنبياء ليس يسلم hidayah

wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi bokki jullit yi fi daje yëpp bokki taalibe yi ngir taxawal sunnas julli gi ñu doon julli muy sunna suñu fedd li ngir génn giñ génn ci weeru koor muy weer wunu barkeel ñu ñaan yàlla nangul na lépp luñ fi def ci lu ci jaamu yàlla te jéggal nu lu mas a def ci ak moy guñ xam ak xamul gu nëbb ak gu feeñ gu ndaw ak gu mag yàlla mën na ko jéggale yàlla na ko yàlla jéggal ci barke sëñ bi xam naa waxtaan wi tey diñ koy gàttal dafa mel ne bii ñu weesu woon ñu ngi ko defoon ci eh, tawat yi nga xam ne léeg-léeg mu dal nit te nit ki sax du yëg ne tawat jooju dal na ko te day yàqal nit day dox digganteem ak yàlla te loola la ci ëpp mooy rëy walla iñaan wala ngistal ila axirihi loolu nag mën naa dal ko ne mën naa doon boroom xam-xam mën naa dal ab jaahil waxtaanu tey wi nag diñ koy féetali ci boroom xam-xam xam ngeen ne sàkku xam-xam lu suñ boroom bëgg la lu am njariñ la ci àdduna ak alaaxira waaye ni la amee ay jafe-jafe ci biir kon nu gàttal ko rekk ngir xatu waxtu yi mu mel ne dañoo jàkkaarloog gone gi nga xam ne mi ngi jóg di sàkku xam-xam te xir ci lool te bëgg ko def ci biir xelam ak xolam xemmeem ak mar xam-xam ñu di ko wax ne ko li ngay wut bu fekkee yàlla rekk a tax danga cey jublu rawante ci sag maas wala puukariwu wala nga jiitu say maas ñu di la tagg ci kanam nit ñi ak amé ci pot poñetum aduna bu fekkee lool rek motax ngay jang xam-xam na nga xam ne nga ta màbb nga sa diine ta ala nga sa bop ta jaay nga sa àllaaxira jëndi ko sa aduna kon mu mel li nga di def perte nga ci waye du yam ci yow ki la doon jangal sax da amul ndax xam ngeen ne sëñ bi wax na ci masaalik koo xam ne kii da fekk ab agresseur wala dokkatu yoon nga jox ko paaka wala nga jox ko jaasi lu mu def ci jaasi wala mu def ko ci paaka ba moog yow yéen a koy bokk kon ki nga xam ne dafa am yéene ju doyadi ba bi muy jàng xam-xam mënoon a yéene yàlla rek tax defu ko yéene ca bëgg a raw ak maasam bëgg ñu jox ko daraja kooku kat yéeneem dafay daf koy yóbbu ci daf koy sànq loolu moo tax salallahu alayhi wa sallam wax ne ku jaay jaasi dokkatu yoon nanga xam ne lum ca def yaag moom yéen ko bokk kon ki la jàngal ba nga mën a jàng te yow sa yéene du yéene ju baax na nga xam ne loo def ci sa xam-xam boobee yaag moom yéen koy bokk looloo tax sëriñ bi diñu wax ne ci masalikul jinaan lu gudd gudd la wa baax luhum wa baax luhum wax na ko lu baree baree bare من هو الحلم أفضل أقي من الحمل وأسوه ففاسما له حسل لكن ما سمره كالنفي في حمل به فكن سلجم نينا خم خم نينا موغن صح جف ndax jëf ji boo ko jëfee te xamoo ko moo loo jëfal ñooyam waaye nag jëf ji day mi ngi mel ne ak garab garab diis na ko do boole eh, jariñoo ci ker gi waaye diis na ko jariñoo ci meññet bi waaye meññetum eh, xam-xam nag mooy jëfe kon mu mel ne xam-xam bu néew moo ëpp ab yool ci xam-xam bu bari boo xam ne bii àndut ak jëfe waaye mu tënk rek xam-xam bi jariñ ne xam-xam bi jëriñ mooy xam-xam bi nga xam ne xamal na la yàlla ra tax na nga ragal yàlla foofu rek la ko tënke kon yow mi jóg di sàkku xam-xam bu fekkee sa yéene ak sëg bëgg danga ko def rek ngir yàlla ak gindi nit ñi ci ak réer ak jubal leen ba duñ moy nanga xam ne loolu te jubluwoo ci ñu naan diwa fi ëpp xam-xam ay xool leen diw nee na koo xam ne kii noonu nga mel nanga xam ne fooy dox malaaka yaa ngi lay tiim di leen di la keral ci seeni laaf ba ci eh, jën yi ci biir géej gi ñi ngi lay jéggulul yàlla waaye nag balaa looloo jàll yow mi jàng na nga xam ne li la tax war a tax a jóg mooy nga gindiku te jub googu nga xam ne moom lañ sàkku ci xam-xam dafa am fu mu tàmbalee am fum mu jeexe dafa am saaxir am baatin mënoo àgg ca fam yam te tàmbaliwoo woo fam tàmbalee il faut nga xereñ fam tàmbalee door a àgg fam yem doo mën a xam baatinam ndare bo danga jéggi saahiram kon nag ñu tegtal la fan la hidaayatu tàmbale ngir nga nattu sa bakkan sa bopp te xool ko ba xam yaa nga ca walla nekkoo ca bu fekkente ne yaa nga ca nga lagg te wéy te fexe ba jeexal ko loolu moo gën nga xoos ci xam-xam yu bari te tegoo ko ci hidaaya bu fekkee nag sa bakkan te bakkan dafa jege nit daf la xëcc jëm ci sàkku xam-xam te sa bakkan rekk a tax na nga xam ne sa bakkan boobu moom lañu tuddee ak nafsul amaara bi suu te bakkan boobu daf lay likke ak saytaane daf lay boole ak moom ngir seytaane tegtal la ci xëcc la ci buumi waram yooyu nga xam ne ku alko rek ca la la xëcce te jubloom gépp day jaxase lu baax ak lu bon ba noppi wone wone la ko lu baax muy lu baax ba yóbbu la ci ñi nga xam ne moom la sun borom di wax al axsarina ahmalan allazina dalla sahyum fi l xayaati dunia wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunhan ñi nga xam ne dañoo jàpp dañoo jàpp ci seenu xel ne ñooy ñi fi gën seen jëf rafet na seen lépp rafet na bu ko defee seytaane da won foofu du la won lu bon waaye dalay won lu baax lim lay xamal mooy darajey xam-xam ak darajey boroom xam-xam yi won la li ci wàcc ci ay hadiis te du la won li yonent bi wax ne ku dolli ku xam-xam te dolliwu ak ragal yàlla du ko yokk lu dul ak sori yàlla dellu waxaat ne ñi gën a tar mbugal yowmal xiyaam mooy boroom xam-xam boo xam ne xam-xamam jëriñu ko dara وخاتنا في حديث أبي دردر إن من إن من أسر الناس عند الله يوم الخيام عالم لا ينفع به المي كو خامن اب خام خام جيرين خام خام جيرينو دانا واخني اللهم اني اعوذ بك من حلم لا ينفع وخلب لا يخسر وعمل لا يرفع ودهاء لا يسمع وحنا موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيم ديمي سي ليله الاسراء اك ميراج دافا رومبو او نيت يو خامني دي ني نياس سين جيمين سي سفره مولا جبريل ني نيومو مونيكو ني دي مو نيغا خامني دي دان واخ لو باخ سي كانم نيت ني te duñ ko def di tere nit ñi lu bon ba noppi di ko def kon nag yow miskin bi miskin mooy ku soxlawoo ndimbalul yàlla bul mokk mukk ci li nga xam ne seytaane mi ngi lu koy xëcc ci ay worom ndax day bu fekkee ab jaahil am na benn tuskore benn mbugal na nga xam ne xaalim moom am na junniy mbugal ndax jaahil yu bala ñu ko mbugal dafa bañ laaj wala bu laajee ñu bañ koo xamal bu boobaa moom mbugalum yàlla dana wàcc ci moom kon mu mel ne nit ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam ñetti façon lañ ku sàkku xam-xam te ngir xam-xam bi mu def ko muy aw fas wu koy yóbbu ci fa yàlla bëgg te jubluwu ca lu dul jëmi yàlla kooku mooy boroom xam-xam bi nga xam ne dana taxe ak keneen koo xam ne dafa jàngi xam-xam sonn ca lool waaye aduna rek a tax mu am ca wala mu am ca daraja wala mu am ca alal te moom xam-xam borom xam-xam la bu mag waaye nag am na taas yu bari ci biir xolom kooku ak jubloom kooku mooy kan mooy ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci danse bu fekkee ab diggam ab dundam gudd na ba mën a tuub dellu kooku ku tuub yàlla jéggal la attaa ibu mina sen bi kaman laa sen bala waaye bu fekkee ak dundam guddul nag mu ne ci lii dañuy ragal ci moom mujj gu ñaaw kon mbiram kenn du ko àtte waaye dañ koy bàyyi ci xatarul masiiha bu fekkee war sa liggéey nañ ko nag tuub balaa ab digga ma dem ah kooku moo dabaatal la nga xam ne moo wéyoon kooku day daal dugg ci ñiy taxe ku ñetteel ki moom seytaane sax da koy mutul mooy bi muy jàng ba muy jàng alxuraan ba muy jàng xam-xam lépp mi ngi ci jublu rekk mu ame ci alal ak di damu ci kanam ay moroomam ak di tedd tedd ci seen kaw walla mu bëgg mbooloo topp ko mu bari ñu ko topp ñu ko gëm bu ko defee nag xam-xamam boobee da koy dugal ci bépp duggukaay fépp fu mën a ame àdduna rekk da ko ci da ko cay dugal te ak waru day dugg ci biir ndax day defe ne lii mu xam ak yére yii muy sol muy yére boroom xam-xam ak nii muy mel ne ñoom am na ci loolu dara waaye day taqaloog waa àdduna ci biir ak ci biti kooku mooy ñiñ tuddee ñu gàtt xel ñi nga xam ne dañoo woro alxumqal maxrorin lu tax ñu dof duñ xalaat mukk ne naa tuub ndax ñoom dañoo jàpp ne ci ñi gën lañ bokk ku jàppee sa bopp nag nit ku gën doo tuub te danga sàggan te sunu borom mi ngi wax ne yéen ñi gëm lu tax ngeen di wax li nga xam ne du ngeen ko def yaay lazina amano li ma taqoloona maa la tafaloon ñooñu moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne ñii day li ma gën a ragal ci yéen ci dajal dajal ku ne xam na ko mooy ma li ñuy wax masiixu dajal te mooy ñëw mujjug àdduna mu ne am na lu ma gën a ragal ci seen biir ci dajal ñu ne ko loolu lu mu war a doon mu ne mooy boroom xam-xam boo xam ne dafa ñawu làmmiñ tey réeral nit ñi ndax bu fekkente ne dajjaal moom réeral rekk la man boroom xam-xam bii nag day soppi nit ñi ci àdduna ci aw làmmiñam da leen di xëcc ci àdduna ci aw làmmiñam ak i waxam day mel ne da leen di génne ci àdduna ci aw làmmiñam waaye da leen di xëcc ci àdduna ci ay jëfam ak i mbiram kon boy wut xam-xam na nga fexe ba bokku ci kurel bu jëkk ba te nga watandiko bokku ci kurelu ñaarel bi na nga wattandiku lol nak bokku ci kurelu ñettel bi mu mujj wax hiyas billah ñi ngi ñaan yalla doli sun xam-xam te yalla rek tax gindi nit ñi rek tax jubal leen rekk tax te buñ ca wut àdduna buñ ca wut daraja buñ ca wut ku gëm buñ ca wut ku topp loolu la sëriñ bi bëgg ku jàng masaalik danga ko ca gis wa baax luhum wa baax luhum na ci kon nag kii sàkku xam-xam na góor góorlu ba bu ko dee sàkku yàlla rekk tax te lem cay defee yàlla tax kon dana taxe texe gu àdduna ak alaaxira sëriñ bi ak i siyaareem ak i ñaanam nu fi yebal ngir ñu teewal ko fi te taxawal ko fi nu ñépp ñu bokk ñaanal ko yàlla may ko fan wu gudd ñu bokk nekk ci gannaawam di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem wassalaamu aleykum wa rahmatullah